بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sopp Imam Malik ñoo ngi ni ñëpp di wax ni ñoo ngi del siwaat ak yéen ci chara Muwatta Imam Malik jataay bu le passé nag waxtaanoon nañ ci lan moo tax Imam Malik tudde téeréem bi Muwatta waaye tamit waxtaanoon nañ ci téere bi wax ni Imam Malik waxoon na ni maa kaana lillahi baqi lépp lu waay def te yàlla tax nee na loola day continuer de waaye tamit jotaay bi la passé gisoon nañ ni xam-xam daal luñ ko gën a tasaare mu gën a yaatu loo gën a financé moom muy gën di yaatu moo tax téere Imam Malik ñu ko charaay léegi romb nañ téeméer kon tey ji incha allahu ñu fas yéenee commencé téere bi ci ahadis yi nga xamante ni bii tànn nañ ko bokk ko waxtaane di ñaan suñu borom yàlla moo defal ñu ñu commencé ci bismillahi irrahmani irrahim eggalee ci alhamdulillahi rabbil alamin kon ñu dugg ci téere bi nag jàng ci hadis yi nga xamante ni bii bëgg nañ koo jàngat mu commencé ci lii di kitaabul kalaam téere bi nga xamante ni bii day wax ci lu jëm ci wax ak làmmiñ ak nuñ ko war a sàmme waaye tamit ci jitaay bu njëkk bi ci téere bi daañu waxtaane kii di Abdullah ibnu Omar nekk saxaabi bu màgg ñu tudd dara ci ak dundam ndax moo ñu nettali hadis bi nga xamante ni bii moom la ñu jël tey kon imaam Malik nee na kitaabul kalaam baabu ma yukrahu min al kalaam loolu incha allah daañ ci ñëw ci jeexintal jotaay ba mu ni xaddathani an malik an abdillahi bni dinar an abdillahi bni omar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما من جلنا انت مالك كان ما يخلو يحيى ابن يحيى الليثي kii jële ci moom moom tamit moo di doomam di Ubaydullahi ibn Yahya kon daal mën nañoo jële ci doomu Yahya ibn Yahya al-Laythi mu ni sama papa nettali na ma ne imaam Malik nettali na ko jële ko ci Abdullahi ibn Dinar Abdullahi ibn Dinar nag foofu lañu commencé xamle gi sëriñu imaam Malik imaam bu màgg boobu ci xadiis nga xamante ni bii ñépp nawloo nañ xam-xamam mu bokk ci ay sëriñam abdullah ibnu omar mii bokk ci ay sëriñam anas ibni malik kon moom ay sëriñam bokk nañ ca ñii di ay saxaaba ku mel ni ibnu omar ak anas loolu aw tàggu rëy la ci jamono jooju waaye ba kera yomal xiyaam tamit day des di nekk aw tàgg ñan ñooy si sëriñ nga ni ndongo yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bàkk wu rëy la kii di abdullah ibnu dinar bokk na ci ñiy jële ci moom nga xamante ni bii ay ndongoom lañu kon tudd nañ ñaar ci sëriñam bokk na ci ay ndongoom nag moom abdullah ibnu dinar shoba ak malik ak sufyaan ñett ñooñu nekk ay kàngam yu mag koo ci doon waxtaane tey du jeex yaakaar naa imaam malik def nañ ci moom ay jotaay yu mag a mag waaye boo ko defan ci shoba noonu nga koy amee boo ko defee ci sufiyaan nan ko koy amee ñoom ñëpp nekk ay kàngam yu mag ci diine ji ay kàngam yu mag ci xam-xam kii di abdullahi ibni dinar moom génn àdduna cent vingt-sept ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku ku jege la jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag ñu ne rawaalahul jamaa maanaam mbooloo mi génn nañ ay xadiisam loolu nag waxin la ci ñiy bind ci xadiis waaye ku dégg wax jooju xamal ni aw tag gu rëy la ñu ni rawaalahul jamaa wala ñu ni rawaalahul sitta mooy borom juróom benn téere yi gën a wér ci àdduna day dëppoo nañ génn ay addisam ni kii de ku mën a mokkal la ku addisam valable la pour ñu tasaare ko loolu kun ko wax ci yow la sun borom yàlla waxoon ci salaa sallam am nga ca wa rafaanaa laka dikrak waxoon na ko ni ko maa la yëkkati ba ca kaw yëkkati sa tur wi waaye tamit koo xam ni nee nañ rawaalahul jamaa maanaam borom juróom benn téere yi gën a wér ci àdduna sa tur andi nañ ko ca seeni téere wax ni yaa nettali addi sàngam loola aw tagg la woo xam ne ba yowmal qiyaam du dakk ndax xam-xam moo la yëkkati kooku nag abdullah ibni dinaar bokk na ci juróom benn yooyu lim nañ ca imam malik ci téeram bii di muwatta ku mel ni buxaari ak muslim ak abu daawud ak tirmidi ak nasaa'i juróom benn téere yooyu ku ñu andi addis jële ko ci yow wax ni addis bu wér la ah mooy nekk na sa tagg woo xam ni ba yowmal qiyaam du deñ fu ñu waxtaanee xam-xam waxtaane addis yéen ta sallam ba tudd la rek tudd say jaloo rek say manoore kon kooku di abdullah ibni dinaar ñu ne riwaaye na ci addis luy wat ñaari téeméeri addis ñu ne addisam bariwut ndax moom lim mokkal net li ko ñu ne war naa yegg ci ñaari téeméer ci seen jamono day nee nan loolu ñoom bariwul woon ci seen jamono ñun de léegi moom suñu borom xam-xam ñu bari ci ñoom boo bëggoon ñu tari la fukki addis yi tegaloo duñ ko man te nee nañ ñooy borom xam-xami jamono kon loolu day wone rek la salaa salaam waxoon ni xam-xam day wàññeeku ndànk-ndànk ba kera mu fi jóge kon loolu yaakaar naa ku ko settantal danga ko gis bu baax Abdullah ibn Dinaar nee na addisam bariwut ndax lan ñaar téeméer la mokkal ñu ne tuuti la mokkal ci addis dëgg la ndax imaam Malik boo demee ci moom ay junni la mokkal imaam Ahmad ay junni junni imaamul Buxaari ay junni junni moom mu mokkal ñaari téeméer waaye Abdullah ibn Dinaar moomu yàlla defal na ko xéewal goo xam ni ku rëy la ci xam-xam te mooy addis boo xam ni menn moom dong ci yoonam lañ koy jëlee ba mu yegg ci yentu soo sallam mu wér te moo di lim jële ci sëriñam bii ji ibnu omaraat ibnu omar bi mu àndal tey moom la àndalaat ni salaa sallam nee na wala bokk wax na ci addis ni naha an bay il wala i wa hibati addis boobu abdullah ibni dinaar moom dong moo ko nettali ci àdduna bi yëpp mu wér ku ko nettaliwaat rek imaam muslim nee na te moom nga ko jëlee soo bëggee mu wér nee na sa yoon day jaar ci moom bu jaarul ci moom rek sa addis wérut tey loolu day kii di sëriñu imaam malik di abdullah ibn dinaar am na ko muy tagg wu rëy ñu jóge ci abdullah ibn dinaar ñëw ci ibnu omar nga xamante ni bii moom mooy soxaabi bi nga xamante ni bii moo ñu nekk di addis boobu ibnu omar nag kii di pàppaam moo di omar ibnul xataab radiallahu anhu kon doom la ci ab ci doom la ci omar ibnul xataab ñu koy wax abdullahi ibnu omar ndax omar ibnul xataab kat amoon na ay doom yu bari nag nekkul ni abdullahi rek la amoon waaye abdullah kenn la ca njaboot ga moom nag boo jëlee lii di askanam boo ko xëccee ba ca ñeenteelu maamam fële dajeek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Kaab ibnu Lu'ay foofa la dajeek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom ñëpp ci giiru Quraysh lañ bokkoon imaamu Dahabi nee na kooku day di Abdullah ibnu Omar nee na moo di al imaam imaam baa ngook nee na al qudwa nee na kooku mooy royukaay nee na cheikhul islaam nee na mag ci lislaam mooy Abdullah ibnu Omar magul islaam mu baax a ngi ñu ko waaye abu abdirahman al qurashi al adawi nee na ci giiru qurash la bokkoon ñu dëkk yoon màkka waaye moom ku teel a dugg ci lislaam la nag ku teel a dugg ci lislaam lool ndax papaam dafa teel a dugg ci lislaam te nekkoon jàmbaar fakk te du joo xam ni ah moom lislaamam moom xumtu doonu ko woon xumtoo waaye da ko waxoon ca pénc ma ñépp dégg ko moo tax kon doomam lislaamam dana yomb fekk ci jamono joo xam ni ñu mel ni Aboubacar sax ña nga am jafe-jafe ci seen lislaam waaye Omar moom ca kàttan nga ko suñu borom yàlla joxoon ak pastéef ga moo taxoon kii di doomam di Abdullahi teel naa dugg ci lislaam ñëpp xam ko waaye kenn waxu ci woon dara Abdullah ibn Omar nag gàddaay na ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog gàddaay na ànd ak papaam bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee ñëw Medina ba muy gàddaay ñu ni fukki at la amoon waaye lu ci man di am ba muy gàddaay moom mutul mu kàllaf moo tax ci guerre Uhud ba mu ñëwee ci yentu sa sallam di ko tàggu pour bokk ca guerre ba sa sallam da ko ni déedéet da ngaa tuuti jëlaatal sa jaasi nga dem ca kër ga toog kon guerre bu njëkk a guerre moo di guerru xandaq wala nga ne wala nga ne ghazwatul ahzab kon loolu mooy geeram bi njëkk muy at ma nga xamante ni bii waa Quraysh ak Ghatafaan ak yeneen yeneen giir ci arab yi dajaloo woon nañu ñëw ni dañuy faagaagal islam benn yoon nag ci Médine dal di koy cercle salaa salaam waxoon nañ gas ay kàmb ci Médine ginnaaw bu ko Salman al Farisi digalee wala bokk junju xalaat bu rafet boobu ñu rafetlu ko ñu dal di gas ay kàmb mu wër Médine ñu tudde ko geeru kàmb ya nga xamante ni bii fas wu jóge màkka rek boo ñëwee ba gis kàmb gi benn nga tàbbi ci wala nga tourné yow ak sa borom mu nekk ngañaay loo xam ni kàmb yooyu indil na ko jullit ñi. guerre booba tamit ci la ñu reyoon kii di Amr ibn Abd Wud imaam Ali moo ko reyoon kii di jàmbaar jooju ci màkka nga xamante ni bii Seydina Omar ibn Khattab lañ ko doon tëkkalal ci njàmbaar waaye nag wax nañ ni moom moo gënul sax nekk jàmbaar Seydina Omar. laata Seydina Omar di tuub waaye ba Seydina Omar tuubee nag wax dëgg yàlla dañuy jàpp ne moo ko ëpp njàmbaar foofu ndax li mu def ci lislaam ku nekk gis nga ko kon guerre booba ci la Abdullah ibn Omar jëkk a gàddoo jaaseem jëkk a gàddoo fittam pour dem xeex ci yoonu yàlla Seydina Omar nag wala boog Abdullah ibn Omar way jërëm bu jigéen moo moo ngi tudd Zeynab binti Maz'un buñ tuddee Maz'un nag ñu bari seen xel dem ci Othman ibni Maz'un nga xamante ni bii mooy ki nga xamante ni bii moom lañ jëkk a suul ci jullit ñi fii di Baqiya nekk armeeli Médine moom lañ fa jëkk a suul comme ab jullit kon Abdullah ibn Omar ñu ni way juróom bi jigéen moo ngi tudd Zeynab binti Mas'un Zeynab boobu nag moom moo nekk tamit yaay kii di Xafsa ummul muminin nga xamante ni bii sayyidatuna Xafsa bokk na ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon jaamukatu yàlla bu mag kii di Seydina Abdullah ibnu Omar nag moom toxal na xam-xam bu bari bu am njëriñ jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lenn mu jële ko ci papaam di Omar lenn mu jële ko ci Seydina Aboubacar lenn mu jële ko ci Seydina Ousmane lenn Seydina Ali kon ñooñu ñëpp dund na ak ñoom toog na ak ñoom jàng ci ñoom xam-xam nettali ko waaye yimul ci loolu ànd naak ñoom dem geeri moo tax ñu ni dem na geeri fële di Sham bu dee seen jamono léegi ñu koy wax ñu koy wax Syrie ñan la fa doon xeexal moo di romain yi waaye guerre bi di Irak dem na ca geeru Irak ba ñun te doon xeexal moo di alfurs ñii di perse yi waaye geeru Basra moom tamit perse yi lañ ko lañ ko seqaloon waaye geeru Faris yenn yi ci bari ci guerre yooyu nag moo nga ànd nag kii di Seydina Xaalid ibnul Walid mu nekkoon seen njiit waaye geeru Faris tamit Seydina Omar def na ko dem ba ca réew Persia mu xeexi fa ngir yëkkati lii di kàddug lislaam loolu yaakaar naa doy na sëkk ab jullit mu nekk lii di tourisme tourisme te moo di doxantu ci dëkk yi xool suñ borom yàlla lim def ci àddunaam bi moo tax saa salaam wax na ci benn benn hadis mu ne ah lii di tourisme daal ci bu amee ci lislaam nee na moo di génn dem xeexi ci yoonu yàlla loolu mooy tourisme bi gën a am solo waaw kon ñoom daaw ñu génn rek ngir taxawaalu dugg ci dëkk yi def tourisme comme ñun niñ ko xamee nii waaye ñoom seen tourisme moo nekkoon lii di guerre pour lislaam dem ca kaw ibnu omar nag ñu bari tagg nañ ko de abdullah ibn mas'ud radiallahu anhu nee na moom day gis na ni gone Quraysh yi daal te mooy ñi nga xamante ni bi Màkka lañ jóge woon nee na ki ci gën a moom boppam gën cee téye boppam ci àdduna nee na moo di Abdullahi ibnu Omar nee na kooku daal gis naa ne àdduna fëkk ko moo tax ba mbir ma jaxasoo fitna yi bari lool ci lislaam gis nañ ne Abdullah ibnu Omar yàlla musal na ko ca waaye taxawaay ba mu ca taxaw ba tey l'histoire daf ko ko gardeel mu nekk bàkk wu rëy moo tax sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha nekk soxna ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na Ibnu Omar ba nga ma gisee may dem ca fitna ja lu tax jàpp ci sama loxo ci waxin lu tax jàpp loo ci sama loxo ne ma toogal nee na mun ko damaa gis ni jamono booba bu ma la tere woon tamit du jariñ dara waaye kii di suñu yaay Xafsa radiyallahu anha ah Seydina Abdullah ibn Omar moo ko ne ko toogal mu dal di toog moo tax moom fitna jooja ca ban rey Seydina Ousmane moom bokku ca woon suñu yaay Aysa nag moom bokkoon na ca moo tax Ibnu Omar radiyallahu anhu da daan wax ne man de fitna jooja ba mu amee téye naa sama bopp jàpp sama njàmbur xeexuma gis naa la ma def nag lu baax la rëccu ma ko de waaye ku ca xeex te ne ci dëgg tamit mu ne la nga def mooy la gën waaye man li ma def moom rëccu ma ko te mooy téye sama bopp du ma rey benn jullit ci loo xam ne erreur lay doon. imaamu Shaabi yi nee na man de toog na ma ak Ibnu Omar atum yàlla atum lëmm nee na may ferekante ci Ibnu Omar di toog ak moom. ñuy dem ak a dikk mosuma dégg mu nettali ci Yonent bi saa sallam benn hadis lu dul benn hadis laa ma sa dégg mu wax ko ma dal di koy note nee na atum yàllam lëmm def naa ko ak Ibnu Omar dégguma ko muy wax ni Yonent bi saa sallam moo wax moo wax nangam lu dul benn yoon ci moo ne Ibnu Omar de dund naa ci Yonent bi saa sallam te Màkka dund ak moom ci Midina kon de xam na ci moom lu bëri maa na nettali ci moom lu bëri waaye gis nga na mu doon moytoo ñun nag léegi day gis ñenn ci ñun ñëw ñu la gént naa saa sallam mu gis gént naa gis yéen saa sallam mu wax ma nangam wala mu jox ma nangam loolu ah ñoom di daaw ñu ko ñime ndax dañuy bañ waxal ko loo xam ni waxu ko saa sallam waxoon na ni ku ma waxal loo xam ni waxuma ko day prépareel sa wàccuwaay ca sawara prépareel sa sées ba ngay toog ci sawara yàlla suñu borom yàlla musal moo tax imaamu Shaabi nee na am na atum yàllam lëmm di ànd ak Ibnu Omar dégguma ko muy wax daara ni wax ni saa sallam ma wax adi sàngam kii di imam Naafi dañoo mas a ñëw ci moom ni ko waaw Ibnu Omar moom bu ñëwee ci këram lan mooy nekk programme am mu ne bu ma leen ko waxee tamit da leen ko man de li muy def daal mooy saa yu julli jigesee mu jàpp dal di dem ca jàkka ja julli bu ñëwee tey nab téeréem nekk di jàng alquran ba julli jigewaat mu defaat nam defoon rek mun loolu mën leen ko de ak a wax dëgg kii di Marwaan ibn al-Hakam bi nag moom lu jara bàyyi xel la net li bii di ñëw net li bu daw yaram la waaye bu jara bàyyi xel la ñi jiite tamit war nañ ci bàyyi xel kii di Marwaan ibn al-Hakam nga xamante ni mu jën na sax nekk ab buur ci jullit ñi ba ñu faatee kii di Yazid wala boo kii di Yazid ibn Abi Sufyan ba mu génne àdduna Seydina Marwan ibnul Hakam dafa ñëw mu ne ibnu Omar radiyallahu anhu tàllal sa loxo ma dal jaayanteeg yow ndax yow kat yaay sangu arab yi sa papa nekkoon sangu arab yi di Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu ah ba mu waxee loolu kii di Seydina ibnu Omar ne ko ah Seydina ibnu Omar ne ko Màkka ak Midine buñ jaayanteeg man nan laay def ak waa Irak nan laay def ak waa Sham kii di Marwan ibn al-Hakam ne ko ñoom day dañu leen di fekk fañ nekk xeex ak ñoom ba kere ñuy jaayanteeg yow waaye kenn du la bàyyi noonu Seydina Omar ne ko giñ naa ci yàlla ne mbir mi si nekkoon ni dañ ma ko garanteel juróom-ñaar fukki at ma nekk président juróom-ñaar fukki at ma jiite jullit ñi waaye nag balaa ma ca yegg danaa rey benn waay danaa rey benn jullit nee na su boobaa bëgguma ko mu ne su ma amoon garantie boo xam ne mooy wax ne man dinaa gouverner juróom-ñaar fukki at nekk buur waaye bala ma yegg ci loolu il faut ma rey diw mais ndax moom moo koy xëccoog man nee na su boobaa bëgguma ko bëgguma rey benn jullit pour yegg ci nguur gi loolu ak am solo ñu dégg ko tey ñaata président ñoo toog ci seen dëkk fekk seen seen seen seen seen nu tuuti seen ban boobu ñu toog ci deret jullit ñi lañ ko teg ñaata buur ñoo def loolu rey ay bakkan yu baree baree bari ndax mën a toog mu nekk lu doy waar Seydina Ibnu Omar de moom nee na waxuma la bakkan yu bari waaye benn bakkan bu ko ci naree fekk mu bàyyi kook ñoom te yàlla tax loolu kon jaral na ñu ubbi suñ jàkke yi nag jàngale histoire yu mel nii jàngale xew-xew yu mel nii ubbi suñ daara yi ubbi école yi jàngal nit ñi ñu delluwaat bu baax ci histoire yu mel nii bàyyi ci xel su ko defee deret yi tuuru dana wàññeeku bu baax a baax ñi niy jiite buñ xamee lii ak ñi leen di jiite jàpp naa ni yu baree bari kon doon ñu doon ñu woon ca yegg Seydina Ibnu Omar nag jikko yu màgg la yoroon jikko yu màgg a màgg wax na ne danaa toog lu ma juróom-ñetti at nee na juróom-ñetti at daal moo ngi nii yoo xam ne paase na waaye mosuma cee suur lu dul benn yoon wala sax mosuma caa suur lekk ba suur rek nee na mosuma koo def depuis juróom-ñetti at loolu day wane ak ragal yàlla am ndax du ñàkkam ku dellu ci biographie am xool lam amoon ci ay jaam ak lam cogoreel da nga xam ne bu doon suñu jamono jii da nga naa ab milliardaire la wala bokk lu mu néew néew ab millionnaire waaye nee na toog na juróom-ñetti at yoo xam ne day bu suuree benn yoon la doon moo tax benn waay ju baax mas naa bind ni ko Seydina Ibnu Omar daal li ma bëgg ci yow mooy lii di xam-xam lu yaatu la de waaye bind ko lépp nga jox ma ko ndax yow yaa ma doy ci xam-xam mun ko dëgg la de xam-xam daf dafa yaatu moom waaye soo ma nee juróom yi ma lay wax nga saxoo ko de xamal ni yaa ngi ci yiwu yiwu màgg la ca njëkk mooy fexeel ba booy dajeeg suñu borom yàlla sa gannaaw bandang ci deret jullit ñi deret doomu aadama yi daal booy dem àllaaxira na ci sa gannaaw nekk lu oyof lool waaye boo mënee tamit sa biir bi nekk lu oyof lool ci lekk alali doomu aadama yi mu ne na nga def loolu ñu bari ci ñun seen problème ma nga foofa nag rawatina ñi jiite léegi lekk alali jàmbur dañoo jàpp ni du dara laa yaakaar waaye Seydina Ibnu Omar yi mu ca nee na ko soo ma ne tamit téye sa làmmeñ ci deru jullit ñi dey nee na def ko nee na ko ñeenteel ba soo ma ne fu dëgg nekk ñu fekk la ca dey nee na saxool loolu fexeel nga saxoog mboolum jullit ñi jàpp ci dëgg mun ko ñeent yi dey xam-xam bari na lool waaye boo ci saxee nee na jàpp na ni yaa ngi ci léppi xam-xam Seydina Ibnu Omar nag ku amoon xam-xam la bu baax waaye xam nu muy jëflanteeg ñii di buur yeeg nguur yi kii di Seydina Ibnu Seydina Muawiyah ibnu Abi Sufyaan mas na koo jox alal ju bari ah kii di Ibnu Omar jël alal ja denc ndax xamul lan moo tax ñu jox ko alal ju bari nii donte mënoon naa rafet njort rek bu doon suñu jamono ji ni kii kat ci sama famille la bokk ba pare moo nekk buur ndax booba Muawiya ibn Abi Sufyaan moo nekkoon buur jullit ñi boole kook ñoom ñaar ñëpp ci Quraysh lañ bokk maanaam seeni maam benn la kon mënoon naa rafet njort mu lekk alal de waaye nee na lekk ko daf koo denc nee na ñu dem ba jëmmi jamono mu bind ab leetar ne ko dama bëgg nga jaayanteeg sama doom jiit yi si su ma fi génnee su ma génnee àdduna mu nekk buur Seydina Ibnu Omar fàttaliku fàttaliku xaalis bu bari baak mbus gañ ko defoon mu ne ah kon nekk man dañ maa tegaloon pièce bëggoon ma lekk alal ji ba suñ ma proposé lu mel nii ma dal di xor ca alal ja dal di signé dal di ne d'accord naa mu ne mukk dal di leen joxaat seenu kees ni leen jël seen alal a ngoog balaa may wax ni dama jaayante kenn dama ko xool ba sa ba sama xel yebal ma sama xel daal lu ma jox loola laay def ci sama sago waaye waaye du ma jël mukk division boo xam ni la tax ma jël ko yépp mooy luñ ma bokkal xaalis buñ ma jox mu ne mukk du ma ko def kooku mooy Seydina Ibnu Omar moo génn àdduna ci Màkka atum 73 juróom-ñaar fukk ak ñett ci gàddaay gi ñu denc ko ca Màkka Seydina Ibnu Omar bokk na ci ay jalooreem mas nañ koo bëgg a fal mu nekk àttekat ca jamonoy Seydina Ousmane mu ni ko mukk jàppale ma rek bu ma teg ci place boobu waaye kii Seydina Ali radiyallahu anhu mas na koo def gouverneur ca Cham ni ko dama bëgg nga dem nekk fa sama gouverneur mu dal di jël ay bagaasam daw dem màkk loolu yaakaar naa ko dellu ci téere taarix da nga ko gis ñu nettali ko ci ay place yu bëri waaye tamit waxoon nañ ni ko tàllal la sa loxo ñu jaayanteeg yow ci lii di xilaafa gi mu ni du ko def mukk kon yooyu yépp nekk ay place bu ci nekk proposé nañ ko ko mu ni xalaatu ko moom àdduna taxul muy def moo tax wax dëgg yàlla ku jaroon di fàttaliku histoire am la ndax liggéey na ci lislaam lu rëy waaye joxe na tamit ay leçon yoo xam ni suñ jamono daf koo soxla te mooy nit ki moytu lu jëm ci mbir nguur rawatina nag bu jamono jaxasoo kon fi ñuy jeexalee suñ jotaayu tey moo di firi hadis bi nga xamante ni bii nag mooy li waral wax ji kon imaam Malik ne na kitaabul kalaami baabu maa yukrahu min al kalaam moo ni fii lim fi jàngale moo di lu jëm ci làmmañ ak nuñ ko war a wattoo ndax làmmañ kat bari na lool ay tarxiis ak njuumte yu muy def kon fexeel ba ngalawaay yow jullit bi sa làmmañ nga tëj ko ba doo ca wax loo xam ni danga ko rëccu kon mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku wax sa mbokk ni ko kaafir kaafir jooju nag xabar la ci mubtada mubtada joo xam ni dañ ko faa jële mooy nga ni ko anta kaafir wala nga ni huwa kaafir ku wax sa mbokkum julli daal ni ko yow day ab yéefar nga mu ni faqad baa biha ahaduhuma nee na kenn ci yéen dana gàddu bàkkaar booba moom daal fitt googu dem du dem ci àllum neen de benn mu jam sa waajooju wala mu ñëwaat ci yow jam la rek imaamu Nawawi nee na nit ñi wóote nañ ci firi hadis bi donte ñaari baat yu gàtt la nag waaye nit ñi wóote nañ ci firi mi wóote gu yaatu wax yu bari ñëw na ca ba ca njëkk wala boo bokk na ca ya ca njëkk wax yu bari yooyu du yëpp sax la ñu indi waaye mën nañ ciy jël yenn rek ba ca njëkk mooy wax imaam Malik nee na loolu liñ ci jublu moo di alxawaarij alxawaarij nag ab kuréel lañ ci lislaam ñoom ña nga feeñoon ci jamono imaam ali radiallahu anhu di wax ni jullit ñu ci bari ci ñoom ay yéefar lañ ba mu des ñoom seen groupe boobu kese waaw comme ñoom noonu lañ leen di xàmmee jàpp nañ ni jullit yépp ay yéefar lañ ba mu des seen groupe boobu kon imaam malik nee na ñooñ la hadis bii tëkku kii di alxaafid ibn xajar rahimahullahu taala nee na imaam malik li mu wax day lu juba jub la ndax ñii di alxawaarij ñoom dañoo fekk ña salaa salaam waxoon ni waa àjjana lañ ñoom ñu ñëw ni waa sawara lañ salaa salaam wax nañu bari ci saxaaba yi ni àjjana lañ jëm baraka alquran wax ne radiallahu anhum wa radu anhu wax ni waajal leen àjjana ci place yu bëri ñoom ñu ñëw ñu ne ñooñu waa sawara lañ kon ñu ni jëm wedd gi ñu weddi alquran weddi yonent bi salaa salaam la mu waxoon ni ñoom diw àjjana lañ jëm ñu ne loolu moo tax ñu génn ci lii di lislaam nekk ay yéefar kon loolu mooy wax bu njëkk bi wax ba ca topp ñu ne koo xam ni daal ganji gi lay na nga ni diw yéefar la soo moytu da nga ko tàmm te te nit ki lu mu tàmm rek mën na dem ba mbëjjantalu dundam suñ borom yàlla nattu ko ca su ko defee lam doon tuumaal nit ña moom mu dal di ci état bi génn ci àdduna su ko defee musiba mu rëy dal di koy dal yàlla ci suñ borom yàlla musal ñetteel wax ji am ñu ne mbir mi kay maanaam gën naa simple loolu sax ndax jullit bi fekk moroomum jullitam mu naa ko yow ab yéefar nga nee nañ kooku day dafa ñëw rek ci boppam mu tuumaal ko ndax yow sa mbokkum jullit la yéena mbokk di wax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah bokk di julli di woor dina asaka fonk lislaam yépp ngeen bokk di ko def nga xam ko ci moom ba pare nga ñëw naa ko bu yéefar nga su boobaa kon yow sa bopp rek ngay saaga dafa mel ne dafa mel ne nga ñëw rek wax sa bopp ni man tamit ab yéefar laa kon ñu ni loolu mën nañ koo dégg ci hadis bi ndax ki ngay tuumaal yow ak moom yéen yéen a yem rek ci lislaam ëppale woo ko ci dara kon loo ko ca wax rek dara desiwaat ci yow ndax yéen a tolloo wax ji nga xamante ni bi moom la ñuy jeexale ibnu abdul bar rahimahullahu taala moo ko wax nee na loolu daal hadis bi di wax ni ku wax sa mbokkum jullit ni yow yéefar nga nee na dana delsi ci kenn ci yéen ñaar nee na loolu mooy bàkkaar la rek bàkkaar la boo xam ni du naax saay noo def mu dal ci kenn ci yéen ñaar su nekkee nag kan ko sànni ah yelloo na ko ndax jëf na jëf yéefar wala mu wax ko su boobaa ñu ni ah yow de mucc nga moom mu nekk bu yéefar waaye su nekkee ni kan ko sànni moom ab jullit la bu sell lislaamam wér su boobaa ñu ni kàddu ko delsiwaat na ci yow nekk bàkkaar ñu bind la bàkkaarub tooñ nga su mbokkum jullit ñu bind la bàkkaaru tooñ nga su mbokkum jullit kon loolu mooy hadis bi donte maanaam am na ay masail yu bare bare bare ci hadis bi waaye dañoo guddal lool ci tarjama Seydina Ibnu Omar ak tarjama Abdullah Ibni Dinar moo tax xam naa dañuy doyloo loolu ci hadis bi ba jotaay bi di ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah